moo tax ma am mbégte nag indiwaat ko tey mu waxtaan ak yéen nag ci euh, li xew ci réew mi euh, ak yi ni mel euh, tey ma am mbégte dalal sama sama grand sama sama sama sama grand bu yàgg nag long time moom itamit Benoît Joseph Sambou te dama kontaan yokk ci Joseph bi ndax xam woon ne turam màggee na noonu macha allah donc Benoît Joseph Sambou ngeen xam ko bu baax ci langue politique bi jaar jaaram ci politique buñ ko doon wax CV am mel kon presque dinañ jël 80 euh, euh, pour cent ci émission bi euh, en tout cas homme politique la homme d'état la yàgg na ci espace public bi arène politique bi yàgg na fi te ku xam la li nga xam ne mooy république mu nekk nag moom itamit kenn si ay jegeñaale président Macky Sall bokk sax naam ci ñi nga xam ne ñoom la woowee membre fondateur bu alliance pour la république mu nekk fi nag euh, plusieurs fois ministre euh, ci euh, régime mu président Macky Sall jamono yi nag président Macky Sall dénk ko li nga xam ne mooy commission nationale du dialogue des territoires CNDT en acronyme mu wutu fa nag sama papa jooju ñëm si yàlla Djibo Leyti Ka mu mel ne kon sama invité résumé naa noonu quelques ponk rek ci PVM euh, Benoît euh, monsieur le président euh, moom mu bokk nag ci lu yees yi loolu xaw ma yees na xaw ma yeesu commission de discipline bu <laughs> bu APR nga xam ne fi ñu toll nii moo pañe actualité bi donc mooy daal tey waxtaan bi daal tey dëgg-dëgg nar naa xoromu kon grand ginnaaw ba ma nuyoo jaajëfal la ci ni nga dagge lépp ñëw wuyu si sunu invitation mais surtout sax Euh, euh, faveur bi nga defaral privilège bi mooy euh, guddi yi moom yéen la waa gars yi di wër yéen waa commission de discipline bu APR donc yow nga nga nga bokk nag ci kàngam yu mag a mag yi xam naa ni sama naataango yëpp wut nañ la mais comme nag yàlla fa dogal par hasard la rek rek Euh, euh, laala kalewee na boobu xaw ma woon ne sax yaa ngi ci commission ba <laughs> donc euh, l'occasion fait le larron loolu tubaab di wax donc ma ma gërëm la ci na ndax ne vraiment yow ku xam communication nga xam nga ne wax ju bari baaxul moo tax foo waxee Sénégal yi déglu la kon ma bàyyi la ba mu la gën a meeg sant la ci loola ma ma bàyyi la nga nuyoo Sénégal yi lay seetaan ak war nag waa Ziguinchor di sa base politique waaw Casamance surtout maa ngi lay nuyu bu baax a baax di profiter parce que at bu bees bi ba léegi gisante wuñu dëgg la di la ñaanal atum naataange atum jàmm bi ñu bokk ko euh, atum wér gu yaram amiin di ko ñaanal sénégalais yëpp amiin euh, di ko ñaanal samay mbokk mm. samay am di jàmm mm. euh, fi ma dëkk waa Ziguinchor waa Casamance mm-hmm. maa ngi leen di nuyu Njombe sa daat ka sumay demata yi njee mm. Kalakota te TFM di émission Yara face à face. Mm. manu sànkeen eh, waa fa war a mhm. li ma wax ci joolaa mooy am mbégte mhm. ñëw toog fii mhm. ànd ak yow ci émission face à face pour mën a waxtaanee li nga xam ne mooy eh, mbiru réew mi alors euh, euh, Benoît ñu door ko li ma wax léegi ak actualité bi muy euh, commission de discipline boobu commission de discipline bi li ma bëgg a xam te Sénégalais yi bëgg a xamandoo ak man mooy commission bi euh, lu bees li nga doon créé la. <laughs> non dégg naa ci wax en fait xam nga parti day am ay instances. Mhm. Euh, ci instances yi nag euh, à part structure yi secretariat exécutif national la. Mhm. conseil national. Mhm. ak nu mu tëddee congrès. waaye xam nga secretariat exécutif national mooy organe d'exécution. maanaam moom mooy doxal parti bi donc au quotidien euh, ci prérogative am ak ci liggéeyam mën na teg ab kuréel pour que mu doxal ko loo xam ne xëy na euh, euh, ci liggéeyam la bokk mooy lu mel ni ay wax yëfu discipline wala mu am question urgente boo xam ne war nañ cee taxaw Euh, wala mu am sujet boo xam ne soxla nañ ci ñu ay xalaat. Mhm. donc ci digalu président parti bi dañuy teg lu ñuy wax commission ad hoc tubaab moom lay wax koy commission ad hoc. Mhm. maanaam boo ko retrouvé wul ci ci ci structure yi mais. Euh, instance bi mooy am sañ-sañ mhm. mooy am dogal teg ko euh, commission discipline nag ñu ngi ko teg pour la première fois en novembre 2013 donc un conseil euh, secrétariat exécutif lañ ko tegee. Mhm. donc euh, bi président doon présider. mu am ay yëngu-yëngu yu amun Thiès. Mhm. donc ci sunu responsable yi ak sunu militants yi. Mhm. donc euh, ci la président euh, tegoon conseil de discipline boobu. Ah, dénk ko le camarade Ablaye Badji trésorier général du parti. responsable de Seb Bignona. toftal ci Mbaye Ndiaye. muy directeur des structures. Abdou euh, boobu moo yoroon jeunes yi euh, Abdourahmane Ndiaye yor administration parti bi euh, foog naa doyen Souleymane Souleymane Niang je crois ci la bokkoon nekk ci sage yi ak man ñi nga xam ne maa yoroon élection yi donc commission boobu novembre 2013 lañ ko teg mu war a entendre wala di suivre ay questions yoo xam ne euh, bu amee ay problème de discipline euh, ay problème yu graaw ñu saisir ko euh, mu war a saytu mbir mi au nom du secrétariat exécutif national donc c'est une instance régulière légale ba nga xam ne ci biir en plein conseil euh, en pleine réunion de secrétariat exécutif dañ ko tegoon mhm. donc moom moo fi entendron donc les camarades de Thiès ci événement yi fa amoon moo entendron moom moo moo tamit saytu woon dossier Alioune Badara Cissé mhm. fàttaliku donc moom tamit euh, moo moo moo moo moo liggéey ci euh, dossier bi nga xam ne moo concerné Moustapha Diakhaté ak yeneen camarades yoo xam ne tuddaguñ leen. ah am xam nga bu ñu bu ay sujets yu bëri la ñuy teg. Mm. sujets yu bëri lañuy ñuy teg. Mm-hmm. donc ñu étudier dossier yi. Mm-hmm. xool bu nekk lan moo ci ne. Mm-hmm. lan lañ ci war a def ak def ay proposition et président mooy. mooy mooy mooy joxe sentence bi. mooy prononcer sentence bi. voilà d'ailleurs boo gisee communiqué bi nga xam ne moom la ñu la la ñu moo ci génnee. waaw par ordre. par ordre lañ ko defee. waaw c'est-à-dire euh, ko defee maanaam président moo joxe ndogal. parce que moom la parti bi. jox sañ-sañ mu prononcer en ay sentence sur proposition du secrétariat exécutif national mm -hmm. comme ñun commission ad la boo xam ne secrétariat exécutif moo ko teg donc am nañ sañ-sañ proposer président la république pour que mu jël benn sanction d'accord léegi nag euh, Benoît dafa naa éclaircissement yi yu yu am solo la ndaxte boobu ba léegi euh, Euh, euh, légitimité euh, commission boobu moo nekk sujet débat bi mu Moustapha Diakhaté nga xam ne moom tamit ndogal bi moom daan su moom la dal ci kawam te te ci geneen wàll mu xam quand seen seen seen saatu parti bi wax na ne ma liir ko sànq ci ci yëf yi mu ne mu ne daal euh, seen statut ak règlement intérieur parti euh, amu leen benn instance du Euh, commission de discipline et que euh, euh, président Macky Sall dong sur proposition du CEN def naa mooy li nga wax sànq moom moo war a prononcer ay sanctions loolu nag tënku ci article vingt et ak vingt six bu seen réglement mais xam nga loolu bëgg a laaj sànq da nga wax ne commission bi mu ngi door ñu ngi ko ñi ngi ko installé en plein milieu seen benn réunion CEN en 2013 et que à l'époque il était question ngeen déglu. Euh, ay euh, peut-être quelques camarades yu nekk cees euh, nga nga wax léegi une liste de cinq ou six personnes yoo xam ne mais ma li bëgg a xam mooy ces personnes là pourquoi bokkuñu ci bii ndax Abdourahmane Ndiaye dégguma ko ci Souleymane Niang boobu ngay wax dégguma ko ci ak euh, defe naa. Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye. alors mën naa am ay indisponibilité. Mm-hmm. Mbaye Ndiaye dafa voyagé woon. Mm-hmm. mais woo ngeen ko saisir ngeen ko bala ngeen non saisir nañ ko loolu Abdoulaye Badji le président de la commission saisir na ko parce que man mi moom mu woo la si suba si. Mm-hmm. pour convoquer ma ci commission bi. Euh, ma laaj ko ñeneen ñi mu ne Mbaye Ndiaye defa tukki jotu ko. Euh, Abdourahmane je ne sais pas lu tax ñëwul woon mais je crois peut-être jotu ko woon ou quelque chose comme ça mais normalement il était à Dakar. donc il est régulièrement membre donc de de cette Mm-hmm. voilà mais le quorum était atteint parce que au moins il y avait trois membres sur les six je crois qui constituaient cette commission mm-hmm. et je ablement statué mm-hmm. am li solo mooy est-ce que lu ñuy def teg nañ ko ci charte parti loolu moo solo est-ce que ndigalu parti bi la est-ce que ndigalu instance la est-ce que ndigalu euh, ki nga xam ne les membres de toutes les instances. Mhm. Ils représentent parti bi en toutes circonstances et en tout lieu. Mhm. donc euh, encore une fois damay fàttali rek parce que lool ñu bëri xamuñu ko woon. damay fàttali ni secrétariat exécutif national ci boppam moo sanc commission bi xam loolu dafa am ah, ah. loolu président dafa toowoon bureau rek euh, sanc benn commission ñu naan ah def na lu ko naan mm. mais c'est en con c'est en 2013 donc euh, xëy na ñuy wax dañ koo fàtte <laughs> wala dañu xamul lu ñuy wax rek mm. mais instance régulière la tant que tasuñu ko nag commission ad boobu day continuer liggéeyam euh,